Aïcha mi ngi noonu ah daal leen jàmm suñu fidèle internaute d'Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajafal bis ni ki tey nag tey rek ci mardi bi dañuy waat li leen li nga xamante ne mooy cas yi nga xamante ne dañ leen koy andil tous les jours tey nag mu nekk kaa yu bees cas yu doy waar mais laataa mooy dugg ci kaa bi di ci xuus xam naa ne dinañ ci ñëw ak yéen damay bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Ramatoulaye rek mu nuyoo Ramatoulaye maa ngi lay nuyu. ayca mi ngi noonu suñu ravissante ravissante demoiselle bi man noonu laa koy woowee waaye tamit dañoo am beneen ndaanaan ci biir ndaanaan yi DJ Momo DJ Momo maa ngi nuyu. Ah, maa ma dose ba pare xam ne ñu ngi seetaan di nuyu ah, Ramatoulaye ci mi suuf yaatoo asamaan di la nuyu yow tamit. maa ngi lay fay di la jaajëfal tey daal def ségrégation yi ngeen def gis naa nga génn fii génne ci sa xarit muy Pape Ousmane Cissé ñu waaye xaadim création yow laay waxal dinaa ñëw yow ci kanam Aïcha mi ngi noonu suñ mbokk internet yi nag tey dañuy rek andi cas bu doy waar cas bu am solo boo xamante ne yaakaar naa ni touché na majorité sénégalais yëpp actuellement mais laataa loolu dama leen di rek brosse tuuti ci li nga xamante ni moom moo woon démb mën naa ni weekend bi yëpp sax euh, di jaare ki nga xamante ni rek euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo si jot a gaañu ak ñi si jot a ñàkk seen bakkan ci accident boobu am fële côté Nioro muy convoi bi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci Sonko ñu nekkoon ci waajal li nga xamante ne moom mooy élection yi di jaale une personne très spéciale am mot kooku dañ koy jaal suñu bopp di ko jaal monde ci waaye di ko jaal langue politique bi rawatina président Ousmane Sonko euh, wax dëgg fa yàlla metti na seen convoi bi def soog ñett ñàkk ci seen bakkan waaye tamit ñoo am ay gaañu gaañu waaye ñu ngi jaale ñëpp waaye rawatina ki nga xam ne moo nekkoon cadreur photographe muy Ibrahima Fall parce que dafa nekk koo xam ne damaa xam ku ko xam muy xaadim euh, création mi nga xam ne lu ñu sol moo ko ñaw euh, donc moo ko mayoon sa 23 bi passé moo ko may soxna ni may wax ak yow gisantewut ak soxna ci yàlla ñëw ak ay dogalam waaye nag ndem yàlla moo ñu sàkk te bi ñu koy bi ñuy sàkk fay ñu ko dërëm kon it nu nu ko neex la ñuy jëlee ndax ku lu nafsi zaayatul mawt bakkan bu ñam dundu dina ñam dee ñu ngi koy jaalee ay mbokkam te di ñaan yàlla na ko yàlla sunu borom ak képp nga nga xam ne ñàkk nga sa bakkan te yërëm leen te famille bi tamit yal na leen yàlla may xolu muñ ci barkeb Seydina Muhammad parce que nag ñàkk dafa metti dafa metti trop maa ngi koy jaale daal àdduna bi yëpp di ko jaale nag sama xarit euh, ki nga xam ne mooy xaadim création naan la àdduna moom nii la demee gën a bees la rek waaye gën a metti la moom amul ndax fii ku ci ne am nga loo xam ne saa boo ko fàttalikoo rek say rongoñ tuuru. Mm-hmm. am na solo loolu xam naa ne li gën a tax nag ñu gën a accentué wu ci li nga xamante ni moom moo amoon fële ca Ziguinchor sa bokk na rek euh, ci soxna soos nga xamante ne ni ñàkk na borom këram ci lu yàggul mu doon euh, lu daw yaram loo xamante ne ni yéenewuñ ko benn doomu aadama mais di ko wax ni force à elle et du courage yàlla moom li gën ci jaam bi lay di def donte sa parfois voilà c'est pas facile pour tout débat du jour bi nga xamante moom lañ andi mu am en rapport nag ak li nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux. Mm-hmm. nañ koy waxte de am ah, sa mbokk yi nga xamante ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi moom def defati nañ xaw def nañ encore une fois pour dire que pour dire que nous sommes pas là pour juger qui que ce soit am na loo xamante ni vie privée doomu aadama la mais am na loo xamante ne ni ñun am nañ ci suñu wàll parce que dafa touché. ni nga xamante ni moom mooy population te tey day jaar ñu taxaw def benn taxaw seetlu wax ci ramatulaay dañuy wax ci ki nga xamante ni vidéo yoo nga xamante ni gis nañ ko ci réseau yi diggante Soxna Bator bi nga xamante ni personnage la ci biir euh, famille sénégalaise comme on dit n'est-ce mm-hmm. ak ki nga xamante ne ni moom mooy Youssou Dieng Youssou Dieng kooku nga xamante ne ni bokk na ci staff Wally Seck ñi gën koo ràññee lool lool bu baax ñu gis nii daal ay vidéo la yoo xamante ne ñu ngi koy véhiculer ci réseaux sociaux yi Euh, exactement Mariama dégg naa sa wax et cas boobu noonu instant bi bokk na ci li gën a fës ci réseaux sociaux yooyu te c'est c'est vraiment désolant parce que ñaar ñooñu d'abord ce sont des personnes de référence parce que dañoo bokk ci ñu gën a fës ci sénégalais je dañoo mhm. war a nekk euh, ñoo xamante ne ñi ñi dañuy xool ci ñoom ci ay jiko di di roy ci ñoom mhm. exactement en plus euh, sans pour autant oublier le fait que fii nii ku fi gis rek ci àddina am na lu muy def ci koyam loo xamante ne bëggul kenn xamal ko ko peut muy kii di Mariama kii di Momo ba ci man mi Ramatulaay et le fait nit ñi filmer leen et admettons le fait que d'abord du nekkul ñoom ñoo filmer seen bopp nit ñi daa am ku leen euh, filmer je sais pas ba xam yëg nañ ko bu ñu leen di filmer wu pas mais lenn la loo xamante ne je pense pas que waroon na fee am en fait waruñu fee woon àgg parce que fii ko fi gis am na vie privée am am na loo xamante ne mu ngi koy def dans son coin te bëggul keneen xamal ko ko te ñoom ils ont le droit de de de s'épanouir dem sali dem foo peut-être def seen week-end ñibbisi. Aïcha man ci foofu laay ñëw ak yow doguma la mais dama bëgg juste relancer une chose. Mhm. tey ci ki nga xamante ne euh, personnalité publique la. Mhm. est-ce que moom am na droit. wala amul droit bi pour dire euh, vivre sa vie privée comme ni mu ko sentiree wala tey dafa war a bàyyi de trop attention ñi ñi nga xamante ne ñu ngi koy suivre ba tax na day privé boppam yenn yi. exactement avant d'abord personnalité publique n'est pas comme une personne lam comme une personne lambda koo xamante ne day dox ci mbedd mais tu vois c'est tout à fait différent moom c'est une personnalité publique peut-être mais elle a le droit de vivre sa vie. pourquoi nit ñi di filmer di ko fësal ci réseaux sociaux yi di dugg ci dugg ci leen ci si seen loo xamante ne seen yoon nekku ci <laughs> je pense plutôt que au Sénégal nous avons euh, d'autres cas plus critiques à traiter mm-hmm. je pense que mënoon nañoo wax ci leneen tey lu dul lii c'est une personne après tout elle a ses désirs elle a le droit de s'épanouir dem foofu ñibbi si pourquoi pas Mm-hmm. man je ne suis pas contre très daal moom léegi daal artistes yeeg personnalité publique yeeg chanteur ñëpp am nañ le droit dem fooy ji prendre seen bopp en photo vidéo posté ko ci réseaux sociaux yi. d' abord li may wax bu nekkul tournage clip. waaw ça aussi faut le souligner. loolu dama koy wax parce que. bu nekkul tournage clip. Mm-hmm. donc dinaa ci sawar a wax bu nekkee tournage clip aussi danañ ci wax ci naka. Mm-hmm. wax nga ko say biir wax Ramatulaay. une personnalité publique. du une personne. Euh, voilà mhm. donc parce que am na loo xam ne tey tey tey yaa ngi koy yaa ngi koy mhm. am na loo xam ne tey ñu ngi la fay xaar. Mhm. parce que parce que influenceur nga quoi. tey dama ko mës a wax benn benn waay. man ko diw. il faut mu xoolaat entourage parce que nekk na koo xam ne bu defee benn kawas. bu génnee Sénégalais yi majorité bi def benn kawas. donc il faut nga xoolaat sa bopp. tu as droit de vivre. mais dafa am loo xam ne boo fa tolloo moomatoo sa bopp. woykat bi wax na ko yàlla na ko yàlla yërëm siiw du jàmmi borom. Mhm. donc boo siiwee too yow. Mhm. donc danga nekk ñu bëri. Mhm. parce que euh, soxna Batoor daf dafa nekk koo xam ne da am na ñu ko ñu ko naw ci li mu ne quoi. muy ci personnage bi mu yor mais nag loolu mbubb la. mais mbubb boobu tey moom moo ko may porté bi ku nekk naan soxna Batoor. donc mbubb boobu message yi mu ciy véhiculé. ak personnage bi mu ciy imposé. war na ko mun a doon parce que duma ma kenn lu baax di lu bon. ci booy dund mais nga dund ko parce que gis nga fii yàlla may ñu may suturaal ñu moo tax mu may ñu xelu tabax lu bari pour bu ñuy dem suñuy besoin làqatu fa est-ce que donc nit ki war nga mën a suturaal sa bopp filmé wuñ ko d'abord mais war nga ci xaar sa bopp ndax ni la ci àdduna boo amee fukk yu la bëgg am nga ñaar fukk yu la bañ yoo xam ne waruñu lu dul yàqal doomu aadama dangay ngay sóoraale loolu parce que le cas de Youssou aussi très sincèrement nit ku baax la Youssou nit ku baax la euh, àdduna nag juumte du wees te àdduna ku nekk mën a juum il faut ñu bàyyi ci xel mais Youssou li ma koy conseiller sama sama papa la sama sama nijaay la très sincèrement lépp la si ñun euh, dañu koy fàttali sax ne que royuwaay la parce que Youssou fi mu toogee la royuwaay la euh, donc na gën a xoolaat li muy def parce que tey am na ay xale yu roy ci moom am na yoo xam ne tey téeméeri nit ñoo xam ne ku ci ku ci xëy saa boo ñaanee yàlla danga naan ko yàlla naa mel ni Youssou. tey jii man mais elle ne pouvait pas prédire ça en fait mënul woon prédire loolu. mais Youssou Youssou ak Batoor sëy yu ñu de da nga fàtte loolu. yu ñu c'est vrai mais mais attends d'abord yow image yi nga gis rek est-ce que ça te prouve qu'ils sont en couple parce que gis est-ce que gis nga leen ñuy def benn acte bu bu bu bu kii en fait bu lay prouver ni qu'ils sont en couple. dama ne de euh, répondre dama ne ñoom ñaar sëyuñu nekkuñu jëkkër ak jabar. sëyuñu nit xaaral may ma ñëw laisse-moi venir. gis nañ fi laisse-moi venir s'il te plaît may ma ma ñëw. Mm-hmm, mm-hmm. tey sa jabar sa diggante ak sa jabar. Mm-hmm. tey boo nekkee personnalité publique. am na loo xam ne doo ko may public bi. waxantuma laa nag ki nga xam ne du alxayri de. Ah, yooyu c'est à éviter. mun na dal ku ne. mais c'est à éviter parce que tamit Youssou du xale Bator du xale. gis nga il faut que. les influenceurs mm-hmm. il faut que ñu xoolaat bu baax parce que koo xam ne da ngay def benn vidéo waxuma la nga mais dangay reetaan Sénégal yëpp statut ko mm-hmm. reetaan laa wax bëri na fi ay influenceurs yoo xam ne dañuy def vidéo reetaan la ñuy def du wax dara Sénégal yëpp jëlaat ko kon kooku lépp lu muy def war na ko xam parce que gis nga dans la vie tout est une réponse mm-hmm. ta façon de s'habiller ta démarche ta façon de parler lépp lépp réponse la te loolu lépp am na ko ciy roy. mais Momo nga bàyyi ma nga baal ma ak est-ce que nit ñi ils ont vérifié le fait que peut ñoom ñaar dañ fa daje par hasard. nit ñi naa la xamal leen gis nga nous sommes dans un pays boo xam ne. Mhm. te nit ñi duñu xooli source bi. Mhm. mais li ñu gis lañuy wax. est-ce que comprendre nga. et que les gens n'ont pas le temps très sincèrement di dem di gëstu ba ca biir biir lu xew parce que nee la bu nekkul tournage clip. Mhm. mën na ne par surprise. on sait jamais. mais ci tournage clip boobu damay taxaw foofu. tey ji même bu nekkee ni c'est pour créer du buzz. qu'on le dise mais dafa am ñenn ñoo xamante ne ni dañu bokk ci génération boo xamante ne ni euh, couche lañ boo xam ne ñu ngi ñëw. donc pour man il a plusieurs manières de commercialiser benn produit que de faire ce genre de choses là parce que pour man dafay am benn message boo xam ne dañ koy véhiculer suñu rakk yi nga xamante ne ñoom dañ leen di ah, dañ leen di topp. et aussi damay def appel ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàll woow muy waa cybercriminalité tey ji ñoom la mooy seen taxawaay ci biir problème boobu euh, noonu. nga baal parce que nga baal may ma yeggali mm. euh, du soxna bateau bi mooy premier bi ah. gis nañ fi yeneen gis nañ fi yeneen après dinañ leen euh, pointe du doigt dinañ leen def appel à ñoom mais ana suite fait fan la mujj est ce que jàpp ñoo noonu. ñoom seen liggéey est ce ñoom ñu ngi koy parce que man je me dis que am na loo xamante ni nit ki moom moo ko moom. que nga nekk personnalité publique nga nekk personne lambda am na loo xamante ni le droit à l'image dafa am solo te nit ku nekk da nga war a li nga xamante ni moom mooy sa image donc lépp loo xam ne bokkul ci côté professionnel je me dis que nit ki amul droit se lever un bonjour ne moom moom mooy am le droit et euh, l'autorisation de poster wala di véhiculer certaines choses yoo xam ne kenn autoriser wu la ko te loolu yaa ngi koy wax ci vie wu jàmbur je t'assure wax nga fi lu am solo yenn cas yi di fi am yenn ampleur yi nit ñi ñoo leen ko may. te gis nga doguma la ñoo doguma la gis nga Sénégal yàqante bi. Mhm. waxante lu bon gi. Mhm. yaakaar naa bi internet ñëwee ci la gis nga bu njëkk. billaay nit ñaa ngi doon def leneen. nekk si jàmm mais ku nekk da nga ah. doon da sa bopp. gis nga le cas de Adamo les Sénégalais ont fabriqué Adamo. Mm. jox ko bi ba pare li ma ci gën a metti mooy que ñooy def seen vidéo di ko tasante di ko yónnee. d'une part di nga mere Adamo mais d'autre part doo ko mere xam nga ci fan nga koy mere bay ku ci nekk am nga passé ku ci nekk juum nga yàlla rek moo dul comme mhm. comprends nga mais nag foo ko dul meree mooy je ne peux yow en intimité nga nekk ci filmer sa bopp ki filmer boppam laa wax ki filmer boppam yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi suturaale sa bopp mais tey kooku bu demee ba ñu may ko benn benn cote de popularité bi non très sincèrement le pays va mal te ci loo xam ne lu bon la chaque jour wax ju bon chaque jour vidéo yu bon non Sénégal dafa mel ni genre amatuñu ay référence dafa mel ni Sénégal amatul marchandise bu baax bu ñu war a mën a wone marchandise bu ñu mën a jaay mais lu bon rek ngay gis te ku ci nekk nag ku ci jëppi ku ci jëppi aadamoo min wi nga dem seetaani live ba te xaaroo fa lu dul fu ñuy yàq doomu aadama donc c'est grave ce qui se passe dans ce pays dans ce je condamne ñooñu nga xamante ne ñooy filmer seen bopp ñooy filmer seen bopp donc lu la fi fekk lu la si fekk daal yow la man. en tout du ma ci sori. doguma la mais sa bopp moom. doguma attends-toi la Ramatoulaye mais si on prenait le du Sénégal par exemple ah Sénégal lañu gis euh, mu nekk réew boo xamante ne dañuy xëy suba ba ngoon jot jël seen temps yi teg ko ci ay photo jàmbur vidéo jàmbur vocalu jàmbur mhm. dossier jàmbur. mais yeneen réew nañ xool par contre ñoom ñoo njëkk ci technologie ñooñu njëkk ci internet par exemple ñooñu njëkk ci leneen ak leneen ak leneen mais ñoom amuñu temps parce que li taxoon le but bi nga xamante ne moo taxoon ñu créé li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux moom mooy lépp c'était pas ça léegi mën nañ ne moo tax parfois sax on pointe du doigt les Africains pour ne xalaat esprit bi nga xamante ne ñun bu ñu am nag nous nous nous nous nous nous barrer au fait on ne pense qu'à ça et pourtant on peut faire mieux que ça. gis nga madame. dans euh... ce cas-là je pense il faut pointer du doigt l'utilisation des réseaux sociaux est-ce que les jeunes sont vraiment conscientes et ils savent à quoi servent les réseaux sociaux. gis nga sëñ Modou Habib Mbacké maa ngi koy nuyu de passage daf ma mus ne di jëmoo yàlla la yàlla xañ jot ma ne ko lu tax sëñ bi mu ne ma ndax boo amee jot koo soxla doo ko jot te ku la soxla jot la. Mhm. gis nga internet yii nii nii nii. ña am jot la rek parce que tey ku xëy war a liggéey très sincèrement doo tal yenn yi gis nga te gis nga internet bonul téléphone bii ba ma koy jënd amul dara. lu ci dugg maa ko ci dugal ay nit ñu ngi nii di liggéey à travers l'internet di ci feeku alal mhm. mais ay nit defuñu lu dul liggéey ngir yàqu doomu aadama te dinaa la wax leen mhm. attention des fois yàqu ku yàlla yàqul des fois ngay yàqu làkk ngërëm te wallahi azim miir ak balu teng si la loo door lay dellu si nañu bàyyi yàqante bi nañu wone référence yu baax yi fi ne dañu nekk ci dëkku Cheikh Ahmad Bamba dëkku Limaamu Laay dëkku Bukunta Njaasaan dëkku Baay Ñas ñooñu dañ fi def lu ne ci lu baax gis nga nañu jàngal parce que man pourquoi j'ai man damay am jabar te samay jabar dama ñaan yàlla ñu am doom mais bu nekkee lii lañ fiy am ay cas aadamoo lañ fiy am ak ñeneen ak ñeneen ñuy wane lu bon suñuy doom fan la ñuy référé woo ba mun a baax et c'est un problème eh gis nga nañ ci veiller parce que gis nga lii wallahi azim arrangé wu la arrangé wul kii arrangé wu ma arrangé wul kii seetaan mhm. mbonte gii ñuy valoriser au Sénégal mel ni que Sénégal boo ko waxee dëkk bon la Sénégal boo ko waxee dëkk waxante lu ñaaw la Sénégal boo ko waxee mag ñi nga xam ne sax ñoo war a teg ñi xale ci code ñoo gën a bon nañ ma baal ah. mais mag ñi nga xam ne ci la xale yi war a roy parce que Sénégal dañu toll à un moment mhm. royukaay daf fi jafe et c'est trop star Sénégal mhm. mais li gën a jafe mooy nekk fii da ngay saaga ndey ñu def la star fii dangay génn wax lu bon tarixa sax ñu def la star mhm. fii da ngay génn wane say cër ñu def la star mhm. fii ñaata nit ñoo fi wane seeni cër tey eh, tey tey fu ñu romb nit ñi daw di leen wër ñaata nit ñoo fi def ay lomotif fu ñu daw nit ñi di leen wër mais est-ce que ñooñu mérité nañ suñu doom yi di roy ci ñoom mhm. non c'est un problème si au Sénégal xale yi fépp maanaam lu bon loolu la ñu transformé ci école yi yóbbu ko ci daara yi fépp fu ñu doon baaxee dañ ko fa yóbbu te attention changé wul de doomu aadama yee changé ba pare bëgg lu gis nga li doon baax mooy continuer di baax li doon bon mooy continuer di bon parce que nit dafay def lu ne lu ne weng xam nga luñ koy wax njëkk woo ko fi te doo ko fi mujjee attention mais lu baax laa ngi fi na ko roy mm. adduna am na lu baax mais lu bon bëri na fi te gis nga nee na ñàkk fayda weesuwul nga dem ba yamal am sa benn benn ëpp sa fukk fukk yi <laughs> Oh, li nga wax <laughs> noonu li nga am na solo lool ah te loolu moom yàlla na ci yàlla musal ramatulaay xam naa kaa bi tey lii la woon dañ lay bàyyi rek euh, nga tàggoo mhm. ak euh, suñu mbokk internet yi d'accord euh, Mariam kontaan na bu baax d'abord ci mhm. waxtaane si cas bii nii parce que c'est très intéressant mhm. te sénégalais yi war nañ war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax parce que concentrons-nous à l'essentiel au nous avons des choses plus intéressantes plus urgent à à traiter que nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax et maa ngi nuyu suñu cher internautes yi di nuyu Momo sama xarit bu baax ji di la nuyu également toi aussi Mariama merci beaucoup. Momo looy tàggoo. ah tarkala macha allah dama bëgg nga zoomal ma sama sañse ba pare <laughs> moo wan leen ki génn fii xale bi mën gën. ki nga xam ne moo juddoo ci atelier tailleur am deux ans ñu xoodal ko ciseau. ba tax Sénégal ne ko xaadim loo ñawul baaxul. xaadim mm-hmm. moo génn fii. xaadim création yéen ñi bëgg ay xeetu ñaw yu baax ay ñaw yu toog ñaw yoo xam ne foo ko sol ñu laaj la ku la ñawal mhm. kenn la xaadim la bu leen juum jamono ji xaadim lu mu ñawul ñebbe acca jël leen numéro bi dangay def yow mii di ma dégg 77 145 16 10 wala nga def 77 013 14 78 wala sax bu la neexee ba léegi mën nga def 76 146 16 dis xaadim création xam naa noo def mu seet si leen. non man du ma du ma soxor nag du ma franchement. li na defaral nice na trop rafet na trop mais man du ma ci wax lu bëri daal parce que xaadim dafa def yëfi ségrégation. waaye kër gi fii dafa am ay féministe man dama la koy wax ah. Mm. ni ñuy beree nii beddu ñu métti na ma trop. Eh, mais yemul ci man xaadim création de. xaadim ci man mm-hmm. xaadim tarkalla macha allah El Hadj am na nu mu defanteeg moom am nu defante ak ki nga xam ne mooy le grand journaliste Pa Ousmane e day ñëw. moo tax ma ne da ngeen beru da ngeen petoo Aïcha mi ngi noonu mbokk internet yi nag tey lii la leen andiloon ci seen cas di leen jox rendez-vous incha allah demain même heure même site bu leen ko tardé comme je vous dis tout le temps merci.